Euh, waa suñu mbokku téléspectateurs yi ci Equivox TV <coughs> waaw Vox Arena nag comme ni ngeen ko xamee label buy tëgg ay làmb la euh, boo xam ne ni taxawal na ay combat yu bare bare ni ngeen ko xamee si combat yu nag yu mag yi mu amee ñu bëgg a taxawal combat yu ndaw yi gis ngeen ñaari xale yi ma wër mm-hmm. kii mooy Ibo bu Kër Mbaye Fall ah, kii mooy internet école de Cheikh Mbamba mm-hmm. seen combat nag waaw borom top 5 la wax seen combat lañ bëggoon waaye combat bi dafa ni ñaari mbër yi ci li tax déggoowuñ ci nag moom lañ leen bëgg a jox micro yi ñoom ñaar ñu wax ko yéen téléspectateurs bu fekkente ne li jaarul wala jaarul lu ci mën a xew di ngeen ko wax Ibo maa ngi lay ziar. waaw Babacar maa ngi lay fay. am nga jàmm. waaw sant naa bu wér a wér. contacté nañ la pour nga bëre ak kii. Mm-hmm. lu tax euh, nangu ngaa bëre ak moom. waaw nangu naa bëre moom. lu tax nga nangu bëre ak moom. dama xam ne sama adversaire la. Mm-hmm. te tout tànk la may tout tànk ñu nekk ci yoon. Mm-hmm. yaa ngi dégg. defagul dara defaguma dara. xamaguñ ma kenn. yow ñaata combat la am. deux combat la am. ñaata victoire deux victoire. kañ nga dugg ci làmb bi. 2019 2020 xam nga 2019 ah. maanaam saison bii ñu tëj. waaw corona waaw ah, ci laa bëree. 2019 laa bëree 2020. ku tëgg say combat yëpp. ñu ngi production sama papa. daal waaw. ñu koy nuyu di ko ziar. waaw noonu la demee léegi kon loolu leer na moom dana pare ni pour bëri. internet maa ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar moom. am nga ziar. sant sëñ Bamba ak sama yaay. kii ñëw na ngeen ñu booleen waa moom pare na yow loo wax ci kii. non kii doyuma ko dara. bëggoo ko. loolu tax boo ñu tàngee kii ta Ibo tàngul. non tàngul. ñaata combat nga am yow. deux combats. deux victoires deux victoires. ban année nga jëkk bëri. on oh, a le top 5. 48 secondes. loolu bisa fu bëri. internet ak kii. 48 secondes. 48 secondes. un mois lu top 5. un mois nga def ko top 5. top 5 ca Bantamba. ca Bantamba la. koo daanam top 5 boobu. Jinne Mbaye Papa Kan. waaw yaa Jinne Mbaye. jël bu rëy. Iba Mar. Iba Mar waaw. dana dalaa soxla wut de. maa hmm. def de. ah waaw yéen waaw yéen ñaar ma def deux combats de victoire. waaw kon bu ñu nee soxla woo ma day ko neex. loolu lu tax nga yaakaar la. waaw non dafa jàppoon ne a hmm. jàpp mënu laa wan. mënu loolu c'est impossible. dalaa ñu wut kon wala. te moom <laughs> aga doo ko maraan sax kii bu ñu bëree barki man Cheikh Anta Mbacke bi ma yaakaar. Ah. bu bëree. waaw bu ñëwee def li def li may def. waaw moom bu ñu bëree une minute. une minute nga wax aga damaa mën a bëree ba fu a bëree yam. internet bi xam nga ko. man Cheikh Anta tey laa koy soog a gis te seetaan ay ah. la bëgg a wax benn affaire. Hmm. lu mu fi mën a wax wax ji lu mu bari bari. te bëree wutal ma. Hmm. non ragal la maa ngi dégg muy wax fu mu dëkk Babacar man ñoo jor laa dëkk. ci ndox ñoo jor gerte ñoo jor mel ne laa dëkk dara ñoo jor barki maam Cheikh Anta bu ma na ragal waa Nioro dañuy jël sama bakkan waaw nga du ma déplacé waa Nioro ñuy jógee ba Nioro yaa ngi dégg may ñëw di wane ay loo xamante ne non bu ñu demee dañ may xeeb. xalaatoo loolu xalaatuma ko ci aduna barki maam Cheikh Anta kii kii taxul ma bëri taxul may bëri de xamaa naa jaaru waay la nii rek moo waroon jaar mu bañ mu bañ ne moo ko jaar te wiiri wiiri jaari ndaari maanaam dina ñëw daari non dina ñëw daari te bu ne maanaam bu ñëwee daari bu jàkkaarloo daari xam ne jàkkaarloo daari dama mën a bëre c'est le mille quatre cent xaw ma nangam kele la loolu bariwul Babacar man maay soixante dix mille lu garaaw laa lay wax nii juróom-ñaar fukki junne soixante dix mille kele kon de yaa ko clé gi wër gi damay moroom baa man bu ma ko la bu ma fekkee mu neex waaw bu ma bëree mu neex bu ma dugg see kenn du laajte kuy mbër mi. ci lu garaaw laa la wax da ngaa sax xorom bëri ba. <coughs> Sey Tidiane mooy sama grand frère. Sey Tidiane yaa. billaahi wallaahi mel na mooy ki na sunu. mel na mi ki ëpp lit simple mooy sama grand frère bu dugg see ñëpp xam ne mu ngi si. waaw Seex ak yoo amul amul amul bés muy bëre te nekkuma esaat. Sey Tidiane waaw laa si ba ba ba keroog ba muy final moo ko maa ngi woon si kaw tegu. Ah, kii daa mel ni déggoo moom kii waxi dóor rek la ay Cheikh Tidiane ay lii Cheikh Tidiane yoonu boppam lay benn. waaw day dem. yaa ngi nekk tudd sama. yaa ngi nekk tudd sa grand frère waaw mais en tout cas dama laa doyul dara doyul ma la dara ba du tànn xëy na mi du melentaan samay bët da laa jigi yow tànn nga yow. tànn laa damaa xëy na da nga laaj ba xam ne leen tànn sama nga ngay doomu adama naan ay tam. dëgg la man man man rabu àll nga may doomu àll yaa bañ sa bopp nag. man may rabu àll moo tax nga ragal. dof laa doomu adama lu ko ñemee lu nekk rek. Eh. non dafa war a xoolaat boppam. sàmmi man dof laa nga naa may. rabu àll moo tax ñemewuma. Eh, man dof laa nga naa may rabu àll. Babacar. day na garaaw laa day na xam nga daal Lion. waaw yow xam nga gaynde fu ñu lay dem. sunu maam sunu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Touba dafa wax ni. waaw doomu aadama bu ragalee yàlla lépp lu yàlla bind da koy ragal. ragal loolu yàlla. lu garaaw laa lay wax. sàmm yi moo tax jëm rabu àll bi yàlla. Ah, ragal loolu yàlla. tàggat kii bu ma wax jàppee. boo xoolee boole yàlla. yow bu ma la maa ragal ragal loolu yàlla. yow yow doy wala jàpp fudul karaw jële day am. demal ba si karaw am na nooy wow wowloo sax su ma sa karaw yi moo ko jàppee jële day am. dëgg li ma la wax. waaw léegi léegi leer na waaw léegi may leen ma may leen ma yow dégg nga séeréer. non tuuti rek. làkkal li nga dégg. non garaawul. waaw man damay làkk séeréer ba mu neex. looy la bu fekkoon séeréer mais sim naa nun ñoo bindoon on daan munoon ndokoor nun mais Ibrahima i boobu ak ñoo joor. gën bi ne dañ la maa bin seedi na carte fe dañ la maa baabaam wen naa ma paa nono ñoo joxe fof koye mais mais ɗetnanuɗa ps non ñaranam to o anduna andunare fof koye mais simna num ka hakkunan ñoƴol bo fayake ak ñoƴol jonwar falya munde siwo jogal basul basa calan e eh, wenanama ba wonneta bakar wenanam jaabi yaa eh wenanam wala yaa koy dégg wala déggoo maa ngi lay dégg ah loolu laa lay wax nii loo ma wax dama ne baaxul ni wenanam yaa may dégg de ah déggoo loolu. yaa may réeréer kon moom. da nga koy ah. a <laughs> séeréer la séeréer. waaw parce que boo moom. Mm. Mm. Mm. mu dëkk ay séeréer lañu mooy Aliou si xam naa ko mu ngi sama département ba ca Bambey waa booy dañuy làkk ay séeréer loolu moo tax ma leen ñu nuyoo ci séeréer dafa seen mbokku séeréer yi moom nag wax na waaye yow daa mel ni est-ce que <laughs> yaa xaw a gaal yi. non dama xaw a <laughs> ngi sa adduna. sama yaay ma noonu lay sa adduna rek. Ah. sama yaay moo gënal di nuyu ah, nag waa Parcelles sama biir grand frère bu baax a baax si man mhm. muy laas daal day sonn ah, ndeysaan wallaahi ndeysaan ah. di nuyu daal su ma libéré may juum quoi dama bàyyi seen nag waaw li ma si kale rek kale billaahi da nga say wifi billaahi lépp day gaaw connexion plein billaahi lan ku si bëgg rek maa lay partagé yaay partagé billaahi ku daan waaw boo ñëwul kenn du daan ku am xam-xam bëri daan rek maa ko jox ne demal ah billaahi ragal ma loolu. internet ak yi. waaye ragal muy dem teer nga naan internet ak yi. ragal muy tëdd baadu. waaye yow bu amul gaal. ah baa noo pii. jàpp bëri daal no femme no fumier no masse piment travail dormir. kese sans réfléchir. ñu ah. dof ok di naa dof. dof yi yëpp. yëpp ah dof yi ngeen sant. waaw ah, dof yi ñu ngi nuyu dof yi kon. sant sama mbokk yi doon Pawlish na daa dox temps yi wax ah loolu rek ma pas Pawlish di dof yi rek hmm. di leen bëgg lu bëree bëree bëri kulu kul daal ku yeewu rek ne ko dof inter moom lay sant sa mbokku dof yow kuy sa idol ci lamb bi man sama idol hmm. Modou Lo mooy sama idol xarañ wallaahi loo loo gis ci Modou Lo bëgg ko qualité jom fula ngor fayda mën a bëre tëgg si temps xam li muy def moom Modou eh, bi muy doog a débuté ndeysaan dañ na man mooy doog a débuté di bëri papa du ne ma kii du dem. Mhm. ndax damaa ndaw. Mhm. kon moo mu bàyyi sax mu nekkoon lam dëkk ba di combat ay combat nu mel nii. Mhm. xool caméra bi su may tuus. tuus Modou laay tuus. xarañ man internet yaay sama idole yàlla bu doon def ba ma nar a bëreeg yow du ma bëreeg. kon même bu ma dee sa tey boo ko waroon a bëreeg. mu dana bëreeg dama bëreeg bëreeg tey jii Modou la du ma bëreeg. dëgg wallaahi maanaam doo ko gisee mu neex la nga bëgg ko barki Serigne Bamba jour bi ko bala ngay njëkk daan dama jooy moom mos a jooyoo si lam te ma nekk mbir moom te boobu xalaat am na xale yu ndaw di jàng oh. ma doon jooy yu métti jour boobu añ ma réeru ma ndekk wu ma ndax mm. combat bi ma ko yónnee mel nu sama grand frère bi mooy bëre kon xanaa yaay sama idole yàlla ma li la yàlla teg yàlla ma ko teg si barki Seydina Mohamed mm. ñu nu bokk ñun ñaar diggante ak Ama ko ci wax yéen dama amaa mu def ndànk rek xam ne amaa champion la kula kula la dafa mën a bëri. na hmm. def ndànk rek jox lam bi axam li muy laaj yéen mu ci bàyyi dara hmm. benn sax mu ko ci bàyyi ni mu doon defi moroomam rek mu teg ko noonu di ko ñaanal ndam. mën naa teg loolu am. ah mën na koo tegal. waa xale ku ko xam-xam ko ci lekk fu la fay da jom ngor mën a bëri am fit. Hmm. kon xam ne moom moom xam ku war mën daal ci lam bi man moom laa jàpp. ku dem ba daan am waaw ma aw ma yaakaar ba a ñàkk daan amaa de. ndax monsieur mooy patron amaa laa dégg a ah. wax ok wala. ah déedéet yow kay yaa wax. ah ma Pikine. ah ku ne sa grand frère ku daan. waaw ku ne seen mooy ma ko Pikine actuellement ci mbir yi takk ngeen. waaw man damaa jàpp ne ku daan sama grand frère déggoon nii. Hmm. ma jàpp ne yaa mën de. am na solo kontaan ci yow. wasalaama jaajëf. sa waay looy tàggoo waaw waaw di siyaaraat waa Kër Mbaye Fall bu wërëwërë. waaw waaw waaw waaw di leen siyaar di leen bëggee oh, xam nga di sant bu wér a wér di sant sama grand Sidi borom États-Unis oh, maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax borom reeru dix mille yi maa ngi koy bëggee bu baax mm, dix mille la jox barki maam Cheikh Anta billahi dix mille la ma jox reer ñaari junni lu garaaw laa ko wax di siyaar waa kër Mbaye Fall gi yëpp dëgg moo limee la may juum tool daa si dis kàmb mm. assurance jéegi bon mbaaw yaa ngi gën a laal jéegi tali si ñëpp daal poste kër Mbaye Fall gi yëpp yow kuy say doon mooy dama la ko waxee woon sànq Aliou Cité Cheikh Tidiane ñaa ñooy say doon ñooy sama ndax ñooñu laa xam te ci li ñu nekk moom a saf quoi. ok war na Serigne Touba di bëggee waat sama doomu ndey Lamine Sarr. Lamine ñu ngi koy nuyu. maa ngi koy siyaar a baax a baax. Ah, gum maa ngi lay siyaar bu baax a baax Omar sa fay. waa mbaar bi ñoom Baba ñoom Pa Lamine ñoom Mor Soulay. Mhm. Ousse. Mhm. borom wasaare Ousse maa ngi koy bëggee bu baax a baax. yaa ngi fariyaas borom ginaar yi. kontaan ci yow maa ngi bu baax a baax. jaajëf amaat bu sa doon di siyaaraat a kër su grand yi. jaajëf sama papa sama lépp. dégg ci yow noonu la demee Baba rek. noonu la demee Lamine tuuti rek yow moom sa mbër dina ragalul ñeme na. ba kii maam see ànd ak bàkke loolu kii da cee war. Hmm. yow yow la ah, ko fi ah kon pa sa sa papa ak papa ak kii nu mu papa la sama ànd rek. maanaam sa papa ak mooy moom ah yaamu sa papa duñ bokk. ñu bokk naa ko papa. Ah, yaamu sa. waaw yaamu Rofange. Mm-hmm. ok kon yow Rofange nga dëkk. ndeysaan ba foogale séeréer. mais kër Mbaye Fall laa juddoo. ah fa nga juddoo. mais sama cosaanu yaay daal laay dem. fan Gambie ah? mm-hmm. am na solo. lu ma ëpp sax kontaan ci yow. parce que ñoom ñoo di bëri fam ñu ñamal leen. déggool kaay <laughs> borom ngoy. déggool monsieur Abdou Karim du noonu la maa ngi nuyu déggool waaye yow tamit ñaari xale yi dégg nañu wax leen di rek parce que donte bëriwuñ nga xëy na ñoom ñun dañ leen ñaan carrière bu ah, parce que ay xale lañ te am nañu affaire yi. macha allah waaw loo wax looy wax Ibo looy wax. waaw li ma si dafa nekk koo xamante ne kii mm-hmm. macha allah am na mbooloo. Mm-hmm. te tamit am na encadrement boo xamante ne mën nañu koo jaarale fi mu war a jaar. Mm-hmm. li may wax promoteur yi ak ku mu si mën doon. na nanu xam ne internet si lamb ji la bokk. bu dee ay billet. lu si waay di jaay mën naa koo jënd. yow déggoo ba bilaay walaay. Ah. kii bu doon bëri tey ñu ne bëri mu mënut a jënd vingt bloc doo bëri. man dinaa ko jëndal vingt bloc mu bëri. kon nag mais nag du ma nangu ñu. bëgg koo téye si benn dynamique rek. Mm. dafa bëre stade am lu mu fa def bëriwaat fa am lu mu fa def. yaa ngi may dégg mm. bu fay bëriwaat dafa war a duggee neneen. laajee bu ma ko grand combat rek na parce que. yéeg ko de taayam taayam mayeeku ko grand combat mais li grand combat yi fayeeku ak li grand combat yi dugal. Mm. moom mën na koo fayeeku mën na koo dugal. am na solo kon nag bu ko defee maa ngi ñaan rek bu promoteur yi tamit si bàyyi xel jox ko si mbër yi mu war a bëri mu bëree ñoom. na solo dépassé même dynamique non Babacar loolu question boobu dana ko réglé waaye Babacar fan laa bàyyi bëre bàyyiwuma bëre combat Babacar yow mii promoteur yi ñoo fayul li promoteur yi fayul li may fay waaw li may fay bu déggoo da ngaa toj fan dix jëm kaw rek man huit combat huit combat ngay laaj Babacar huit combat laa def fii laa <laughs> ko waxee huit combat laa def six victoire deux défaites te ah. bokkul ak li ma bëre si àll bi waaw li ma dama toj de Babacar kon dix millions nga bëgg ñu fay la Babacar dix jëm kaw rek dix jëm kaw promoteur bu mënul fay 10 millions man dooru wér yi nga xam ne ñëw ay yooyu noonu. Ah. samay xarit lan nag mais xam naa ko ndaw yi 10 millions. jëm kaw ku ko si wax ak adversaire tamit bi ma bëgg a bëree. bi bëgg a bëree. am na solo ah fu laay jaay naqaar moom la diis la bëgg a encaissé kon loolu moo lay wan ne kon moom licence am ko nële xam sama xel lay dem ci sama siya sama Lamine parce que fu ma gis Lamine ma koy foog ndax Lamine Seck bu leen TV ñaan Sénégal fi yàlla di leen ñaanal tamit yéen ñaan ay xale ngeen lii du dara da ngeen di bëree incha allah rabbi yàlla mën a def fa ngeen di daje dina gën a neex ci yéen gën a baax ci yéen parce que kenn ci yéen rawut sa morom nag mu wax leen ko mm. déedéet yow boo ne danga koo xeet du ma ko teg ci sport bu fekkee dañ wax ci cadre sport yéen a duggandoo noo yéen a tolloo ay victoire ngeen di ay xale kon war ngeen a mën a bëre waaye hmm. nag la olof waxoon na fi ne pataa sama gënal ñaam bi kuñ ci sa avocat daa bu la neexee ne bëgg guma bëre moom moom itam bu ne da ragal duma ko nangu parce que boo ragaloon la ma gis nga koy bëri dugg ci làmb doo du mën a am kon yéen ñaar ñëpp rek mais loolu nag mbër ak mbër la des fois ñu classante da ngaa ragal ak maal raw mais rawanteeku ngeen yéen a bokk yéen départandoo hmm. yéen a lu ngeen def li ci kanam raw li bët nañu yónni yàgg comme ni